waaye sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Jorel sëriñ bi dafa wax ne bala ñoo wax dara ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi lay xamal ne mi ngi sant mbooloo mi bu baax a baax a baax di sàkku nga ñaanal leen seen mbir yépp yéwén ci barkeb sëriñ bi eh, di la xamal ne itam mbir mi ba ko sëriñ bi déggee ba fi ñu toll nit ñi ñëpp dañ ko def seen itti dégg nañ ndigal li ci ñëw ñu woote gi ñoom ñëpp ñëw nañ di teewlu si li leen tax a jóg mu day xamal ni itam dëkk bi am na fi ñaari rajo yu fi nekk yu nga xam ne biñ tàmbalee woote ba fi ñu toll ñu ngi ci fii ñuy wax ak ni yéen sax benn rajo bi wax ji ñu koy def mi ngi ko def direct Jolof gépp di ko dégg réew mu ne dafa am ñu fa yàlla teg ba ku fa yàlla teg koo xam ne kuy jaar ci bunt ba ci moom lay doon kon damaa bëggoon bu ngeen ñëwee mbàkki Bari kon ñu jàll ci sëriñ Serigne aw bal la mu nga xamante ne euh, li ñu xam mooy buntub sëriñ bi ci fii ci département Linguère bi jaayanteeg Serigne Touba fas yéene bokk ci liggéeyab Touba ca kanam weer wu dee nga joxe ñaari téeméer euh, at mi di ñaari junni ak ñeenti téeméer sëriñ bi sàkku ci ñaari million yi murit yoo xam ne dañuy bokk ci taalibe sëriñ Tuubaa yi doon tele taalibe ëpp nañ loolu mu sàkku ci lim bu tol noonu ngir bëgg lim boobu su matee lim boobu ànd weer wu nekk ñu dajaleel sëriñ Tuubaa ñaari milliards ndax lim boobu su matee dañuy joxe noonu ñaari téeméer yi weer wi dana doon ñaari milliards at mi dana nekk ñaar fukki milliards ak ñeent ñaar fukki milliards ñeent nag bu ko taalubee Serigne Touba yi dajalelee sëriñ Touba yaakaar naa ne ngir dëkkam bee di Touba nga xam ne booy ñeenteel bëggug sëriñ bi tuubaa nga koy bëgg nga koy ñeenteele ndax Serigne bi kenn xamutoon lu mu bëgg ku dut sunu borom tabaaraka wa taala ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sangam ba. ak téereem bi nga xam ne moom la wàcce woon ci moom alxuraan luñ koy ñeenteele mooy dëkkam bee di Touba dëkk bi nag mu liggéey ci genn xasida wax fa dëkk bi jëm ak nam naramel ak lam bëgg ci dëkk bi ak lam ci fàggu lépp gannaaw bi mu dénkee boppam ak mbooloo ak ñoñam ak ñëpp gannaaw bi mu leen dénkee suñu borom ba noppi te fekk mu wutale dëkk bi aw turandoo ci aljanna genn garab gu nekk ci aljanna wax suñu borom ne ko wajal ilaahi maskani tuuba abad misla smiha bi jaayi xayri man abad yow sama borom kat sama dëkk bii di tuuba na nga ko def mu mel ni turandoom wa te turandoom wa way mooy sajaratu tuuba ga nga xam ne moo nekk ci aljanna nga xam ne bu ëllëgee képp ku dëkkee fenn ci juróom-ñetti aljanna yi nga xam ne ñoom la suñu borom bind fu fa waay mën a dëkkee rek sajaratu tuuba googu dana la fekk keral la waaye dana la fekk ngay xéewlu ca meññetam ma foofee la sëriñ bi tudd dëkkam bi wax ak boroomam ne ko na mel nit sama dëkk bii na mel ni turandoom woowee loola nag daa jot sëkk murit yi taxaw ngir jëmmal loolee ndax sëriñ bi kat ca géej ga la waxe woon ne katabtu fil bahri anni laa amudu yaddi ila nasara abidil maahi sama loxo bii duma ko tàllal mukk euh, koo xam ne kii ban rek lay lay jaamu euh, Euh, ak ak suuf du ma ko tàllal sama loxo bii sama loxo bii ñu ne ko koo koy tàllal mbàkke mu ne yaddi li muxnin karimin naafiin samadin laa li dara yi ma taati min sulaytini sama loxo bii sama borom dong laa koy tàllal waaye duma ko tàllal mukk di nangu ab dërëm boo xam ne bu bàyyi ko ci mbuurus àdduna la kon loolee ci la sëriñ bi doon dox waaye ci la yar ak njabootam waaye ci la yar mbooleem mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak moom ba xamuñu woon lu mooy jaamu yàlla ak liggéey ak jàpp seen ak njaambur ak daw tooñ ak lu ñu am jox sëriñ bi loolu mooy illa illay sunuy tànk tey ji ñu jóg jaar ci moom mu ànd ak ñun ci itteem ndax woote woon na fi xëy na manoon naa toog ne nu dem leen waaye ci itteem ak pasteefam pasteefam ak wone gi mu wane ci jëfam ne mat na liñ koy doyee moo tax mu ànd ak ñun ñëw daara nu waxtaan ak mbokki taalibe ya fa nekk jóge fa ànd ak yéen ñëw fii xam gi mën a xam nag ñi nga xam ne nii wér na ko ne bu tegee liggéey bi seen loxo lañ ci bëgg danañ ko am kon loolu daal mooy mooy tànk yi li di doxal lépp xam nañ ko doyloo nañu ko fas nañ ci yéene dugg ci saayir ak ci baatin ba sunu dara du ci des suñu kenn du ci des ginnaaw noo ngi koy dégg bu yàgg ba tey nag waaye ndigal rek lañuy doon déglu ñun doonu jëfe mukk lu ànd ndigal bi ñu jotee ndigal li tey nag na ngeen xam ne noo ci biir te kenn duñu ci mën te nun de képp koo xam ne kii gore nga war ngaa njukkal Sëriñ Tuubaa ndax ñi mu bokkaloon jamono mu jëm ci yàlla ñu di ko téq xupp nañ ko xëpp nañ ko faalewu leen man de wallaahi su ma sañoon lépp luy am tuwaa taalibe yee koy def am naa ci lu ma ci xalaatoon loo xam ne du ma ko ci rajo bu ñu wéetee ma wax leen ko sëñ Cheikh Jorel sëñ bi li wax dégg nañ ko déglu nañ ko dégg nañ ko li jamatoon wax sëñ bi wax na ko am nañ ndigal dana ci dugg loolu sëñ bi waxal boppam waaye lim wax déglu nañ ko dégg nañ ko dégg ak déglu nag du ñu bokk waaye dégg nañ ko te déglu nañ ko jàpp nañ ko leer na dal am xel ndax li wax dara mënu ko weesu Touba ca kanam lu ci dugg lu ne ci poosu Sëriñ Touba la jëm loolu lañ doon seet te Sëriñ Touba moom. lu waay génnee ci sa poos def ko ci poosam te muy dëgg ci yow Sëñ Tuubaa képp tax balaa déwén da xam ne def nga ca loola nga def def ko mën kon nag sëriñ bi sëñ moo dawa bàll suñ sang bu tedd ba daa daa dégg ci moom muy faral di wax de saxaar xàmmee wut waga wu def wurs ak waga wu def nefere lim xam mooy waggu lonku rek kon nag sëriñ bi yéen ñu jógee ci sëriñ Touba suñ pësteef yii am nun dong yëpp na seen pësteef yi nekk wago suñ pësteef pësteef yëpp dugg ci biir roxol murid yi de li ma wóor mooy ñëpp am nañu yéeney jëf nga ñaanal nu ñaagal ni ci ci barkeb sëriñ Touba lii gàllankoor am xel ak xol ba du mën a jëf yàlla musul ñu ci ndax lii sëñ bi lu woyof la ñaar téeméer gone sax da nga may ko ko ñaar téeméer da nga tase fii gone ñu ne la weer wu dee joxeel ñaar téeméer sëñ Tuubaa sëñ Bass loolu yomb na waaye nag seytaane may gàllankoore ay am xel ak xol na nu ñaagal ci barke sëñ Tuubaa ba mu sori lu bu nu taseeg moom fenn ba nii ko sëriñ bëggee ñu defee ko noonu kon sëriñ bi ci la cant gi la ñuy bokk yi sëñ Cheikh Awa Balla nee na ngeen jëfati jërë ngeen jëfati la sëñ Abdou Khoudous waxoon ba ko ba bañ demee Touba Belel dañoo dem Touba Belel ñëw liggéey liggéey ba tuwaar la ñu ñëw wax kenn ku ne wax a baax mu mu ne man de li sëriñ Abdoulaat bëggoon mel na defal naa ko ko. yéen tam li ma bëggoon defal ngeen ma ko kon li ngeen bëgg yàlla na leen ko defal kon nag sëñ Cheikh nee na sëñ Cheikh Awa Balla moom li mu bëggoon defal ngeen ko ko li sëriñ bëggoon defal na ko sëriñ bi kon nag yéen itam li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal